asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci kilifteefu cheikh ibrahima xalil Lo ak ci teewaayuk sëriñ elhaaji fàllu buso di xalifa sëriñ afiye ak mbooleem njabootuk sëriñ afiye buso gépp ak teewaayuk parents d'élèves yi ak mbooleem anciens élèves yi direction bu école abdoulahi ibnul masoun ak fatima bintu rasul ci njiital sëriñ saaliw buso ak mbooleem personnel bi fay liggéeyee ñoo am mbégte di leen yëgal ak a woo ci bi ñu fas yéene amal di ci sargal nga xam ne ñoom ñoo jot a Karim ci école bi ñu jàpp ko dimanche depuis le 11 juin 2023 ci bustaanul aarifina ca ñàggan nekk ci lagrose bu 9 jotee ba 14 bis bi nag ñoo ngi ci woo mbooleem kilifay diine yi kilifay cosaan yi kilifay aada yi di ci woo it fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal ak mbooleem association islamique yi nekkee ci réew mi di ci woo rabita madaarisul quraanul karim ñu ci woo ñépp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn ku ci bëgg yeneen i leeral mën nga jokkoo ak Serigne Saliou Bousso ci 77 654 98 28 wala 70 101 70 58 wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.